bonjour ou bonsoir Nous ngi bég liñ dajawaat Vision Media pour vous présenter le deuxième numéro de votre émission NMC tey duñu sore dañuy rester fii si Thiaroye SAM 123 pour retrouver le crew Metal Life bi doon def open press fële sa Calassens chers amis internautes ni ñuy def mooy man ak yee ñu ànd xool Make your life tough to the back to the cop and I'm the amul chop. Kurdi dege sop komu harlen you talk, bis tu talk, dis you talk. Jay bile du the dañoo gedd suñu live toog di xaar bésu dee ba dal la gën a daag na borom tool yee su dee nee nañu la ñuy ñaaw li dimbalante seeni biir koo si gis mu ngi seetaan ndax ribaay fee seeni biir di gën di dundee naqar lante mag tiitaange Sénégal di gën di crise danañuy dundee naataange te ñoom ak seeni doom alalu réew mi la ñuy gëdd si ay sato la ñuy tëdd ñun ñuy gën di deew ak mënd investisseur la lekk lu métti métti lañ fay dund juróomi nit ci benn gund fay tàlle koo bay fudd ñaar tey ñoo fa dem ñàkk fa seeni bakkan Ilan faatamu nyulen jisistuu ca Nisiadaa di Massa kaasaa bu Besbunak dara turu kaasaa sedimasaa Nalan sanda armiya minyakakati nono Senegal ben fi jar ni non nono Bisku di joy ci ñu la chile the king Inu jenge solange dungu dafati di joy te ku soy. tekura visai yu toy te buta wujutai Bisku jorti joy chile the king Minus losing is so late to you have a day joy, take a rub soy Put down a you toy, they Yo, crazy, crazy gëstul xoolaat sa gaay rey beeg fen bi billahi ñun dañ ci taay seen yenn kaay yi seen ñu souligné yenn kaay yi innocent ñu jàpp tëj wi de nguur kan lay jeex protéger lesbienne politicienne formation étudiants yi grève grève bàyyi jàng formation même président même politique la ñuy gis dem ba tay élection milliards yi kenn ñu armé gën dem ba tay maître yi ca dëgg jaay leba ka fay ñu yàpp si njëg a jaay tët bu ñuul lañ foog respecté partout Sénégal benn bopp mais ay millions kàddu fii lu ñëpp war a bokk rek la kenn di gàddu ñii di wax ñii di jëf opposition bi gàddu ñun ñu xiif bay jooy ñoom ñu lekk bay duur bu ñu dajee même route ñun ñooy mujjee wetu di la ñuy dund suñu hut Brésil c'est tout Ku jorti joy chöne jo kings Enu dege sone ge dungu da fati Askanti joy te urab soy Buta me yuto ita buta wo jo tai Bisku jorti joy chöne jo kings Enu dege sone ge dungu da fati Askanti joy te urab soy Butaw lañu tooy te butaw ñu tooy wax ji dafa tooy si seen jigéen la ñu tooy dëkkee ñu naax saay saay lu ngeen ñu dig mu naax saay ñooy dëkk di try dëkk di cry boobu ba tey ngeen dëkk di lay waay waay na xëy mbaay ñun ñooy dugg ci bureau yi topp rang yi lépp ngir vote ba noppi xuus si mën mi nooyi pën bi yendoo misère ba dee ñooy dëkk ci dëkk bi ñàkk gëdd bi ñàkk luñ dundee ñooy raag raag bi fal président la ñuy fàttee dañu dem ba sonn ñun dem ba son dem ba tay ye ye ni lu ngeen ni di mën a taay faay bu waxul mu leen li ñi dund tiis seen discours nañu ko mis na fay si eh eh, eh si ndem bu ñu jaam waay waay kañ la ñu am piis bis bu jot ñi jooy ci lu ñu kiis ay e lu ñu nga soo léegi dundu dafa tiis askan di jooy te ku rabu một ta lấy được thôi ta một ta một chút thay biết một chót như trời chỉ lừa như kia đi luôn nhanh cái sau lấy đôi đồ nào vật đi ascan đi trời thế cũng rớt soi một ta lấy được thôi ta một ta một chút thay We want to, we want to, we want to Kum salam, kum salaam Zero Moral, aka Rebel Umbedo, represent Metal Life Crew. Yeah, Kalata MC ngay am bandi bu mag bi aka borom jaase ji represent Metal Life tout sam saay. Yeah, Metal Beren ngay am MC represent Metal Life from tout sam Waaw, yëpp Metal Life ñu ngi koy créé depuis 2012 lañ commencé wax Metti Life crew fa avant crew bi dafa am lu jiitu woon moo que ni ay melomaan lañu woon daan déglu hip hop dem ba si yàgg ceene daan toog jël taxi hip hopeur yi ku si mel ay Killa ay Simon du koy freestyle loolu moo dam di dem ba jur Metti Life crew ba benn jour ñu ceene ne ñun lu ñuy def ñun pourquoi pas ñun ñu dem ba xam nga tijji benn crew quoi créé benn crew philosophie bi fa la jugee ñu dem Thièna tijji Maître Laye Cour mais Maître Laye Cour tiri la woon man la woon Zéro Moral Kalaate ak Maître Brand ñoo Thièna am philosophie boobu noonu mais pourquoi pas ñun ñu au lieu ñu dem di jël ay texte jaamu ñu exploité loolu noonu si suñu inspiration seen dem Thièna créé Maître Laye Cour. Euh, lan noo Maître Laye boo ko déggee gars yi dañuy dégg Maître Laye naan waaye yéen bindagoo leen lu metti ak quoi que ce soit boobu grup firi ko metti la ak ñun ni ñu représenté parce que ñun dëgg la ñuy teewal te dëgg dafa met fii Sénégal dafay rafet dëgg boo ko fi teewal dañ met. la da ngaa metti lu ne da nga ko daj quoi dëgg dafa metti metti bi la jógee live mooy li mooy li ñuy tund ñun dëgg la tund quoi looloo tax metti live parcours met live instant yi nii nii def naa ay sound di préparer benn mix top Met live instant yi mu ci yoon di di représente caaroy saa nii mën naa ne fësaguñ ci kanamu hip hop Galsen seen yeeg yooyu noonu ko mais ñu ngi dugg si saa di dugg si koñ yi ñu ngi génn suñu saa di dem yeneen saa di represent live caaroy bi quoi. yo Matela Mr Dora Bumeda mooy rap hardcore moom mooy Matela parce que bu ñu rap hardcore mooy rap engagé. yo Matela Cour rap boobu lay def que Maître Laye mi ngi génn di ko teewal ñi ngi am ay connexion di am ay link ak yeneen gars ñu ngi génn suñ saa di toj concert yi di ko teewal fu ne parce que Maître Laye boobu noonu gars philosophie boobu am na ñoo xam bu ñu ko déggee xam nga dafa am fu ñu lay classé quoi mais xam nga anyway ñun loolu yëngaluñu parce que ñun dañoo am benn gëm-gëm ak action benn rêve mooy lan muy Maître Laye fu mu jëm loolu incha allah rabbi rek. yàggatul Metty Live mu ngi exploité actuellement nii sànq maa ngi waxu question yi sax di tëbal yooyu noonu quoi mais Metty actuellement nii nii dañoo dañu génne single bi nii tëbal ko gars yi pour wane pour yeewaat gars yi quoi ñu dem ak seen conscience bañ a dem si lii demee hasardement nii quoi yeewaat bu baax. mais Metty Live sant yi mu ngi si ay projet di teg benn mixtape si projet boobu lañ nekk quoi mais sant yi nii bugguñu woon sax lancer affaire yi tellement nii quoi occasion la yi comprendre waale quoi MetLife taw tëdduñu di nelaw wala nekkuñu fi di nax nit am lu ma dolli foofu tool si suite projet bi quoi parce que single bi nii continuité la après dañ koy def benn vidéo clip MetLife loolu mooy first projet boo xamante boobu lay close ba pare bu jeexee incha ñu jublu suñu projet quoi. waaw naxee mbaay benn mot la boo xamante ni philosophiquement lañ koy indee parce que comme luñ ko waxee rek ku lay nax chaque jour da ngay dem yow ba sonn su ñëwaatee rek doo ko gëm da xam ne kii jaru nga koy déglu ko ay naxaala xam ay day lay naxaat you know naxee mbaay la waat loolu moo waral turu naxee mbaay bi quoi koo xamante ni yàgg na la nax xam nga après dootoo amati yow benn gëm-gëm boo koy dégloo moo waral ni maanaam ñun dañoo dem ba sonn dem ba taay moo waral naxee mbaay loolu moo indi turu naxee ñoom lu ñu wax yëpp ay naxe mbaay la quoi du lu ñuy dugal ci benn. waaw dafa am lu may dolli tuuti si titre bi quoi côté naxey mbaay parce que dañuy fàttaliku bi ñu doonee jeunesse di fo dañ daan fo naan naxey mbaay naxey mbaay kon moo wow noonu dafa nekk moo bu garaaw woo xamante ni nit ku nit ku am dégg-dégg dina xam ne lii bu ñàkk fayda ngay wax ni lii naxey mbaay parce que bu ñu demee ba ton ay xale yu ndaw ndaw. naan naxay mbaay di ko wax loo xamante ni loo gëmut la yow nga doon xale bu ndaw xam ne lii loo gëmut moo moo tax ngay wax naxay mbaay cela veut dire que gars yi dañ leen a gëmut ak luñ promesse buñ fi mënti waajee discours buñ fi mënti waajee naxay mbaay la quoi sàmbaay baat si say loolu laa gis. yooyu saa ñu bañ koy def ñun luñ di ko analyser hip hop daal seen eggagu ci benn niveau bi mais ñun suñ saawul suñ koy def dañuy même suñuy suñuy yee benn nit sax.

Euh, dañuy fagaru si politiciens yi quoi parce que élection yi ñëw na te bu ñëwee ñoom même chose ñuy def comme euh, Twitter bi lu mu koy waxee naxee mbaay moo ko ni dañuy ñëw tëg ñu yoo xamante ni duñ ko def après bu ñu paree dem baa ñu lu ñuy dund parce que ñun tëj yi ñuy dund. caaro la ñu dëkk gis nañ Caaroy ba muy demee li ñu dund à chaque fois depuis jamono yi Abdou Diouf Senghor ba tey même chose la ñu dund dara changé aussi te ñu jaar ñëpp bu ñëwee même chose la ñu promettre dina leen defal lu gën kon c'est juste benn changement boo xam ne dañ koy wax pour xel. yeah askan wi li ñu leen di dénk ba tax na sama boo xoolee sama première couplet li ma dugg seen nee naa wax ju bëri ji dafa doy si seen diggéey lañu ñu tooy dëkkee ñu nax saay-saay lu ngeen ñu dig mu nax saay kon diggéey yooyu noonu laa bëgg xam nga gars yi ñu xoolaat bu baax ku leen di dig ak lim leen di dig ñoom nan lañ siy séancé mais élection yi ñëw na ñu jox la benn 2000 yab la si Ndiaga Ndiaye wala ñu jox la ay ravitaillement après suite bi lool ngay xalaat moom bu faloo ba toog galère bi ngay dundaat cinq ans mandat bi lolou dafa tar kagn la mandat bi di ñëwaat galère bi ngay dundaat lolou dama bëgg bëpp sénégalais bëpp citoyen boy dugg ci bureau di voter nga xol ku ngay voter grâce à 5 ans de mandat yoy non quoi lolou la bu gaay baay bàyyi xel bu baax luy denk dénk hip-hopeur yi mooy rap mission la quoi rap téwal la téwal sa askan téwal fi nga dëkk te instant bii nii dañoo toll si moment boo xamante ni moment wax la parce que comme ni ñu ko waxee hip hop moom euh, nous sommes les larmes du peuple quoi te ji askan bi ñun ñoo war a doon seen rongoñ parce que ñun ñoo mën a téye micro bi wax wax ji jëm feneen ak feneen ak feneen ko loolu suñu rôle la wax askan bi daf leen nànk si lii loolu suñu mission la kon bépp hip hopeur yi nga xamante mooy sa rôle war nga ko def si élection élection yi ñëw na war nga génnee son xool askan bi yi ñu bàyyi si xel quoi bu ko defee élection ñu xam lu ñuy voté waaw. foofu lu ma si toll quoi suñ si côté move bi quoi ñun ak yeneen rappeurs yi. c'est que yi leneen leen sonal actuellement nii mooy tendance bi ak topp bëlëw bi loolu mënoo kaa topp ba pare ne da nga yee nit ñi quoi mënoo ñëw nii da ngay ñëw yee gars yi si yenn bul dem soirée lii lii ba pare waaye leen son soirée pour ñu siy duggee soirée. rappeurs yi ñoo war a njëkk a yeewu quoi bàyyi yenn yi xam ni ba ñuy téemaat pour rap pour teewal askan bi la quoi xool lu gars yi di dund te mënuñu xaa génnee def ko son gars ñëpp jot si ñu looloo suñu rôle quoi pour ñu génnee son ni tasaare ko si dëkk bi gars yi jot si pour gën a mën a yeewu ko loolooy mission rappeur. yaa li may dool lool si côté boobu noonu comme côté rappeur yi ni ñu bàyyi ko loolu pour man faute bi yëpp DJ la quoi parce que boo xoolee DJ hip hop rap message dañuy teg boo yoo xamante nii kenn xamul lan la ñu leen di teg ndax lan maanin wala tendance wala buzz mais bu ñu doon animé dañu war a animé kon booy du change yoon di jël beneen wéy di changé move di changé për moo tax côté boobu noonu man DJ laay balaame quoi pour ñuy tegal son yi nga xamante ni ñooy conscientiser population bi yee salaamaaleykum waa di di jaajëfal ñëpp xam ñu teewoon si open press bi gaa yëpp ñu ngi leen di sooloof waa Caaroy Samsam Telikaro benn araf jàmm gën sooloof xam di wax rek xam nga affaire yi nice na quoi di leen jaajëfal yéen waa NTV maa leen di jaajëfal bu baax a baax initiative bi nice na jël seen temps ñëw perdre ko si bi jëm kanam koo wasalaamaaleykum. yee fin bi lenn di bëggawaat gars yi fi teew yëpp di bëggawaat ñëpp quoi affaire bi nice na ci ñoom lenn rek lañ ci jublu pour yeewaat gars ñu xoolaat fi ñuy teg seen tànk bu baax waaw waaw foog naa gars yi wax nañ lépp ah, mooy que ni gërëm gars yi teewoon ci conférence de presse bi mais man sama mot de la fin askan bi laa koy jagleel quoi mooy que ni yi ñëw na ku si nekk na def naa bàyyi xel bu baax a baax si ni lépp lu fi waaye votel keroog yomal xiyaam di nga ko voté waat quoi bu la nit jox xaalis ba tax na votel ko non non waaw loolu laay man loolu mooy sama mot de la fin quoi yow di ziar ñëpp. yëpp yëpp j'espère que vous avez suivi aimé ci live comme ni ma koy yàgg di waxee yéen a ngi am ay rappeurs yu mag seeni gàlle bu leen di wàlli yaan kon ni may def mooy di leen dig daje pour la troisième numéro de votre émission NMC mais balaa boobu maa ngi jaajëfal BM El Master sama gain Assane 3 ak sama ménagère Dieng di leen dig daje incha allah la troisième numéro de votre émission and and see. One love and respect. Wassalam.